nasru muminin bi xettali jullit yi ci mbooleem seeni i jafe-jafe nasru muminin garab ak gàncax andi leen xéewal gu rëy muy ay xeetu jaaro yu doy waar lool te li ci gën a yéeme mooy ku nekk da ngay xoll sa tabian ba xam sa nature lan la ñu door laa jox nag jaaru bi dëppoo ak yow maanaam jaaro bi dëppoo ak sa tabian te day ànd ak cuuraayam ak parfum am gaaw lool efficace lool te mboolem ñi utiliser jaaro yi nee nañu da ngay takk rek tàmbale gis résultat te njëriñ li mooy daf lay may wërsëg ubbeeku bayre ak kaaraange gu mat sëkk ngir am ci jaaro yi lu jiitu da ngay xam sa tabian maanaam sa nature lan la ba pare ñu door laa jox jaaro bi dëppoo ak yow Nasrul Muminin garab ak gàncax di yëgal mbooleem ay clientam ñi nga xam ne dañoo bëgg xam seen tabian maanaam seen nature seen couleur seen bis ak li gën ci ñoom daw leen gaaw woote ci numéro téléphone bi 78 445 04 79 ñu xoolal la say mbir ba noppi jox la jaaro bi gën ci yow Nasru Mominin garab ak gàncax di leen jox ay produit yu baax 100 pour cent naturel ci wàllu néew kàttan ak ñu tuuti bëgg am yaram ak ñi am yaram bëgg a wàññeeku Nasru Mominin garab ak gàncax mooy xettali jullit yi di saafara seen jàngoro. Ndeysaan noonu lañu rayee Yodou Jams ginnaaw bu ñu ko yeewee ci àll bi takk ko torturé ko. def ko bépp ñaawteef saagaloo ko boppam jooyloo ko yuuxuloo ko waxloo ko mbir yoo xam ne neexu ko woon ñu sekaase yaram bi yàqate ko jama-jamade ko ba mu wàcc liggéey faatu ci anam bu doy waar ñu gas ko suul ko ci àll bi maanaam daal mel ni ku ko doon mbugal mbugal mu tar lañ ko teg moom Yodi Jams door koo suul ci àll bi bi wërsëg jotee waa këram gisuñu ko xamuñu fan la fanaan jaaxle woon nañ waaye comme magam jëmm la te militaire la xëy na dafa def dafa dem camp ba te tàgguwul kenn waaye bu ñu demee ay bis gisuñu ko yaay ji jaaxle woon na lool waaye papa ji moom dafa paralysé woon jamono yooyu dafa feebaroon toog benn place mënul wax mënul def dara waaye yaay ji moom moo doon dox activité yëpp ànd ak ay nijaayam ak lenn ci mbokk yi ginnaaw bu ñu toogee ay bis dégguñu benn nouvelle ci moom te yëg nañ ne nekkul Kaaba jaaxle woon nañ lool ñëwoon nañ ci kër ñi nga xam ne mooy kër Père Éric ngir laaj ko kooku di Yodi Jams Père Éric yitam jaaxle woon na bi nga xamee ne gisul Yodi Jams dégg ko te jàppoon nañ bis ngir war ko may soxna mère ba itam jaaxle woon na lool doon ragal sax Yodi Jams dem dugg ci ndox mi wala mu topp yoonu suuf bi ngir dem bitim réew wala itam beneen yeneen mbir jàpp ko ba nga xam ne daal dana doy waar lool xel daal di xalaat lu nekk waaye xalaatuñu woon benn yoon ne seen doom jooju dañ ko rey xam ñu itam wala buñ ko reyoon itam duñu xam ñan ñoo ko rey nekkoon na daal lu bizarre lu doy waar loo xam ne ñoom jaaxaloon na leen lool foofu lañ ko commencé communiquer di ko wër wër ko nag fu nekk ki nga xam ne mooy Clara tamit jaaxle woon na ci bi mu gisul Yodou Jams waaye amoon na kontaan ci biir xolam nag tuuti ndax bu sañoon yu jëm si moom day dem te kenn dootu ko gisati ndax dañ ko ko bëgg a forcer ngir may ko ko te moom bëggul benn yoon sëy ak moom moom Ahmed la bëgg ba tax na nag xelam doon na dal bi mu déggee ne Yuri James dafa disparaître kenn xamatul fu mu nekk niki noonu itam frère Clara moom itam doon jaaxle lool ci kanamu nit ñi di dox ay jéego ngir wër Yuri James ndax ñoom ñëpp benn famille waaye bi ñu demee ñaari weer ñetti weer gisuñu yoodu jams noonu nag bi nga xam ne wër nañ ko fu ne ci àdduna maanaam mbokkam yi nekk bitim réew sax woote nañ laajte ba xam yoodu jams dafa ñëw ci gaal yi waaye xamuñu fenn foo xam ne daal am nañ information ci moom li ëpp ñi nga xam ne ñooy njaberkat yi leen daan seetal ci seen tuur yi li ñu leen daan wax mooy kii suuf dafa ko tiim maanaam dafa faatu waaye nag daawuñu xam ban anam la faatoo ba loolu jaaxaloon na leen demoon nañ police fu ne dem nañ fa amul benn trace bi feeñal Yudu Jamsu ne rey nañ ko ndax ñi ko rey ay professionnel lañ ñu man li ñuy def lañ ndeysaan foofu nag la ko ay mbokkam daal di saraxalee ca seen aada jooy yu métti nag waaye sarax boo xam ne ànd nag naqar ak yaakaar ndax li ñuy def njortu rek lañ ci am waaye amuñu leen wóor nag ne Yudu Jamsu dafa dee bi ñu demee nag ba mu bëgg yàgg lool nag di jege at nag ki nga xam ne mooy Clara nag di feeñal yéenam ak mébétam ci nag war am boroom kër ndax jigéen la te toll na ci sëy ba tax na doon na wax ak baay ji waaye baay ji ne ko ah doom fi ne mbir yi day doy na waar lool de ndax itam sunu aada buñ la xasee takkal ni sagar ba ñu jàpp bis ay kilifa yëpp toog waxtaanee ko lu ma la yéene Ahmed yéene la Ahmed fi mu toll nii moom jàpp naa ne yooyu di jëm si ñëwaat képp wala ñu xam ne carrément dee na loolu mooy li nga xam ne moo la mën a dimbale te bu dee itam dinañ xool cause yi mu deewee am na nu muy demee mbokk yi dinañ man mën a joxe li nga xam ne dinañ mën a laaj seen àq su boobaa ñu jox leen ko li nga xam ne mooy sëy bi mën a dañ nga xam ne doo dootoo sëy ak jodi jams keneen ngay sëyal su boobaa ñun dinañ xool naka lañuy ñuy négocier ak Ahmed ak diinaam ji ba xam yow yaay tub wala moom muy tub ak nan lay demee bañ man lu ko may waaye daal jàpp naa ne fi mu toll nii seen sëy bi gën naa compliqué ndax mbirum Yodi Jams bii waaye xale bu jigéen bi moom mbëggeelam ci Ahmed dafay gën a yokk ndeysaan niki noonu itam Ahmed kersa gi nekkoon seen diggante si sax tàmbali naa jeex ba ñoom ñaar foo leen fekk ñoo ngi wet di waxtaan. waa kër gi bu ñu génnee dem xew wala sax événement am wala nit ñi nekk ci seen i bërëb seen i néeg bañ a génn ñoom ñaar foo leen fekk ñoom ñaar rek ñooy toog moom soxna soosu di Clara dafay ñëw ci néeg Ahmed di waxtaan ak moom yàgg fa loolu ñuy waxtaan noonu ñuy toñante di foo di ndax soxna si dafa am cofeel lool ci Ahmed waaye waa gi ñoom wóolu nañu Ahmed te xam nañ ne du koy dox caancaay ndax ku fonk diineem la te diine ji mu bokk xam nañ ni bokk na ci li mu gën a bañ mooy di jaxasoo jigéen ju la lewul ba na sóoraale woon nañ loolu Ahmed taxoon ñu am wóolute ci moom xale bu jigéen bi waxtu wu nekk lay nekk néegam ñoom ñaar amoon nañ mbëggeel lool te itam lépp loo xam ne nit bëgg na ko defal Ahmed moo xam yére yu mu fóotal wala lu mu koy defal danaan ko Clara ñëwal nga jox lii sa waa ji nga xam ne ñëpp xam nañ waayu Clara la nekk noonu itam Ahmed su génnee gis yére wala dàll wala loo xam ne xam na ne rafet na ci Clara mu jënd ko jox ko ko ñun ñaar daal doon nañ dund dund koo xam ne bu sëy doxoon seen diggante. ndeysaan sëy bu neex ngay gis ndax cofeel gi ak mbëggeel gi jéggi woon na dayoo lool ci kanamu nit ñëpp te nit ñëpp itam amoon nañu mbégte ak rafet rafet ci seeni kanam ci ñaari jëm yooyu ba tax na waa kër gi yéene woon nañ loolu sëy boobu am waaye nag ci noonu paa bi moom doon na sóoraale bu baax famille bi nga xam ne mooy famille Yori si ndax paa bi bizarre na lool li ñu waxee ne Yori si dee na ba ñaanal ko sarxal ko ci seen aada te itam xamul lan moo xew te xel doon nañ ñaaw ne est-ce que seen loxo takku ci ñoom ndax bañoon sëy bi am waaye loolu yëpp comme ñoom amuñ ci benn preuve doonuñ ci bëgg a wax waaye yaay yori jam su moom jamono bu nekk moo ngi dem police di laaj fan la enquête bi toll boole ci itam di dem ci sëriñ di ñaanlu lu ne daal mu def ko ngir deretu doomam jooju waaye bi nga xamee ne dem nañ ab diir ba yoodu jam su xale bu jigéen boobu mu ëmbaloon doom ja juddu nekk góor ñu àndil xale bi maamam yaay jam su jox ko ko ndeysaan maam ji tuddee ko Yodi Jams boole ko jooy yu métti yu tar nag jël xale bi nag di ko xoolee baayam ndax na mu nuroo woon baayam boo ne jàkk xale bi xam ne Yodi Jams mooy baayam ndeysaan foofu itam ki nga xam ne mooy maire bi daal di wax ki nga xam ne mooy Eric ne ko nag may naa sa doom bu jigéen bi di Clara ñaari at ñaari at yooyu. soo xamee ne sama doom biir di Yodou si ñëwul moo xam dafa dee moo xam moo ngi dund waaye su ñëwul daal boobaa libéré nañ kalaaraa mel nañ ko jàmmam ngir mu dem sëy keneen waaye Clara yi ñaari at yooyu xalaatu ko muñ ndax dafa yàgg lool yàgg lool sax ci xale bu jigéen bu toll noonu nga toll ci sëy gis koo bëgg di dund ak moom ñu xaar loola ñaari at ci loo xam ne àndul ak benn sabab lu dul aada kese loolu naqari woon na Clara ba tax nag bi ko papa ji loolu guddi googu kalaara dafa fanaane jooy bi mu jooyee jooyee ba kenn xamul lu mu niru ci noonu la Ahmed gis kalaara ci comportement bi daal di koy laaj Clara waxtaan moom leeral ko mbir yëpp Ahmed ne loolu koy jaaxaloon na ma ndax man seen waajooju di seen mbokk mu daan fi ñëw te ma déggoon ñu ne dañ la koy may ci laa gis ne ci laa dégg ñu ne dañ ko doon saraxal parce que dafa faatu. nga xam ne Ahmed moom li xew lu bari du ko xam waaye Clara leeral na ko lépp moom itam jaaxle na loolu ndax faatu gi itam doon na ragal ñu jiiñ ko ko wala ñu jiiñ ko waa kër gi donte ne lu bizarre la ndax kenn amu ci preuve te itam doyoon na lool nag waaye Yodou James daal jékki-jékki ne mes kenn xamatul fu mu nekk kenn xamatul ci moom dara kenn amatul nouvelle am doyoon lool ci noonu nag. la Clara nag amee lu ko naqari loolu bi nga xamee ni xam na ne ñaari at la nar a toog mu mere woon yu du jam si lool mere yaay ji doonte na ñoom ci naqar lañu nekk waaye daal yaay yu du jam si toog gi mu toog ci xefam mi daal xañ ko mu dem sëy daal métti woon na ko aado jooju itam soofoon na ko ba tax na daal bi mu demee ba amatu pexe dafa décidé xaru moom Clara ci noonu nag benn bis Clara yendoo nekk néegam di jooy ndax naqar ku tar Ahmed itam jaaxle lool nag ndax gis na ne Clara dafa tëju nangu ta wax ak kenn waaye ci timis gi noonu diggante dix na heures jàpp vingt heures vingt diggante boobu la Clara génn daw ay jéego ay xël romb ay nit yu toogoon ci bedd mi am na benn teen bu ndaw bu nekkoon ca koñ ba nga xam ne saaru teenu siyaan yu gàtt yooyu la nekkul teen yu xóot Clara fala daw rek daldi dugg ci biir teen bi bu mu tëmbee ci biir teen bi nit ña fa nekkoon ñëpp daw yuuxu yuuxu yuuxu yu tar noonu fasaa sa koñ bépp génn ñu ne dafa am ko dugg ci biir teen bi noonu ñu ne Clara la Clara nga xam ne koñ par koñ nit ñi noonu lañ dañ dajaloo bari lool sax ba ci kër googu nga xam ne ñooy kër ñoom Yodi Jams sax yaay Yodi Jams dafa daw génn bi mu yëgee ne Clara dafa xaru mu amoon kersa lool ak naqar gu rëy nag ndax jàpp na ne wax jooju mu waxoon ne Clara ñaari at lay toog bokk na ci li naqari kalaara bu mu xaru ndeysaan Ahmed nag du jooy di yuux ba ñëpp yërëmoon ko frère Clara yi di jooy yaay ji noonu niki noonu papa ji am lu ko naqari lool waaye bi nga xamee ne lenn ci ay soldaar yoo nekkoon ca koñ ba ñëwoon nañ jàpp ci dugal ay guum takk kenn mu dugg daal di génne Clara bi ñu ko génnee gis nañ ne dafa xëm waaye deewul waaye benn loxo bi loxo càmm bi dafa damm ndax ni mu daanoo dafa metti ndeysaan noonu lañ ko yóbbu hôpital mu def fa ñaari fan yoo xam ne ay mbokkam yëpp ñu nga fa woon yàlla suñu borom defal ko mu amuk tan daal di ximmili ko noonu Ahmed nekk ci wetam di ko taxaw ci noonu la mère bi daal di laajte kii kan la meer boobu nga xam ne mooy yaayu di Jams ci la ko ñenn ci ay dëkkandooram wax ne ko kii benn xale bu góor la bu ne ci koñ ba boo xam ne daal ku baax la xam naa ab naar la nag waaye dafa luye woon ca kër ga kër ñoom Eric fa la luye woon daanaka ci kër gi la bokk waa kër gi dañ ko considéré mais bi ne xale bi musulman la di xanaa ñu ne ko waa musulman la mais bi ne kon baax na noonu nag bi Clara yeewoo mais bi daal di ñëw daal di koy baalu àq ndax ñoom ndeysaan dañoo gaawoon a am yërmande ne ko maa ngi lay baalu àq léegi mën nga sëy ku la neex sa diggante ki nga xam ne mooy yoddu jam sama doom man mii ndeyam jeexal naa diggante bi ndax aada yooyu fam yooyu seeni jigéen dañoo am kàddu lool ci seeni kër ba tax yenn décision yi nga xam ne ci seeni doom lay jógee lu ci ëpp yaay yi ñoo koy décider boo tax na noonu la maire bi jëloon décision ndax meer bi boroom këram dafa nekkoon ku feebar koo xam ne dafa paralysé woon ba ñëpp di ko xaaroo ndax mënatul woon dara ba tax na jigéen ji moo yoroon kër gi noonu la jéggalee Clara Clara tamit mu ngi ci ay coono yu métti ci hôpital bi waaye xaram dal na bi bi waxee loolu waaye ba tey itam paa bi itam am na xel mu tey ci naka lay def ba sëy bi am te kenn du ko yedd ndax paa bi ku dëggu la ku ñàkk caaxaan la waaye nag bëggul ku ko yeb ndax ñoom loolu bokkoon na ci seeni critère ci noonu nag bi mbir yooyu yëpp jàllee Ahmed moom daal waxtaan ak paa bi ne ko bu dee ñun suñu diina moom nangu na ma takk Clara benn Clara nangoo nekk jullit wala même bu nekkul jullit itam man mii boroom këram comme jullit laa dina may na ma ma takk ko mu nekk sama soxna paa bi ne ko nag kon condition bi ma lay tegal mooy amoon naa quartier sàngam am naa fa benn pàkk bu ndaw boo xam ne dama bëggoon kenn ci sama doom yi ma jox ko ko mu dem dëkk ji fa ndax pàkk boobu man maa ko moom sama àll la ma liggéey ko léegi nag dinaa la ko jaay prix sàngam prix bu yomb nga jënd ko nga dem tabax ko Mamella Karara nga dem dëkk ji fa ndax su fekkente ne yaa ngi dëkk fii mën nga am jafe-jafe te itam takk gi ngay takk Karara itam du nekk loo xam ne lu ñuy fësal la àdduna yëpp di fi daje ndax booba mën na indi ay wax ak ay coow waaye li may fexe mooy damay fexe rek ñu takk ko ay kilifaam ñi nga xam ne ñooy samay kilifa ñooy kilifay Karara ñëpp yëg ko ñu may la ko yow itam nga waxtaan ak say mbokk ba ñu dégg ba ñu d'accord ci loolu. noonu Ahmed ne ko loolu moom du doon benn problème. kër googu itam comme kër la goo xam ne ab pàkk la boo xam ne benn néeg képp la am néeg ba fa nekk suñ ko mënee defaraat man dinaa fexe taxaw ci ba ñu liggéeyaat ko nga xam ne location bi sax dafa may daal di wàcc ma dem dëkk ji fa su ko defee bu bu bu néeg bi paree su néeg boobu paree ba ñu miire kër gi dinaa fexe ma takk Clara te boobaa samay mbokk duñu ko bañ loolu moom bu desee ak samay mbokk rek du doon problème problème bi kay ci yéen la waaye dese waaye yàggee ci man. sunu borom nag yombal lépp nag comme moom xale boobu di Ahmed Wuld Madi doon na liggéey ba am as wërsëg soo xam ne denc na ko mu jënd pàkk boobu ci loxoy paa bi dal di defar néeg boobu ci diirub ñaar jàpp ñetti weer miire kër googu te xam ne tabaxoogul bâtiment waaye daf koo defar benn néeg rek mën faa dëkkaale noonu lañu ko mayee Clara ñoom ñaar ñu ànd dem dëkk ji foofu bi nga xamee ne mariage na takk def takk nañ sëy ba pare Clara itam kontaanoon na lool nag moom gisatul dara rek ndax mbëggeel gi mu bëgg Ahmed ni ki noonu itam Ahmed bépp condition bu ñu ko tegal rek accepté na ko ndax bëgg gi mu bëgg Clara noonu la ñu àndee dem dëkk ci kër googu waaye maire bi bi ñu ko yëgee moom yaay yori jam si amoon na lu ko naqari lool ndax ba tey jii baal na Clara ngir mu dem see keneen waaye loolu dëgguwul dëgg ci xolam ba tax na doon na sukkandiku ci yëg ne xale bi ab jullit la mu naan billaay man Eric mii lu ko tax bon jaaxal na ma Eric nan la jëlee doomam ji di Clara di ko may ab jullit fu mu toog di wax loolu ngir bëgg koo jaxase ak ay mbokkam ba tax na paa boobu di Eric ndeysaan mariage bi indi woon na complication bu métti ci moom ndax mbokkam yu bari mere woon nañ ko boole coog nag ñu bëri di dem ci seen tuur yi di ko liggéey nga xam ne Eric day toog ba mu yàgg tànkam bañ toog ba mu yàgg biiram di métti muy feebar di tëdd ko jug sonn lool nag te lépp may gi mu may doomam ab jullit moo ko waral waaye pa boobu di Eric ko amoon fulla la ci boppam ba tax na bàyyandikuwul woon benn yoon ndax kilifa la moo yoroon këram ba tax na lépp lu xam ne dana ko aar ci seen tuur yooyu daan na ko def ngir aar boppam ba njabar yu bon yooyu ay mbokkam daan def ngir di ko xeex daawul agsi ci moom ak njabootam doon na ci góorgóorlu bu baax ci seen tuur yooyu moom itam la nga xam ne moom la nga xam moom la xam rek ñoo bokk lu ñu xam ba tax na daanaka def ko dara itam lu doon jafe la léeg-léeg ñu xaw ko jàpp waaye léeg-léeg itam mu rëcc leen ba tax ñu bari xawoon a yokkat ci mbir moomu bàyyi paa bi mu dund dundam ak njabootam loolu mu def décision la boo xam ne moo ko jëlal boppam ngir may doomu bu jigéen bi ki nga xam ne mooy Ahmad te ab musulman nekkit étranger maanaam dëkkul ci dëkk bi li leen ci naqari woon bari na waaye nag comme moo jur doomam am na sañ-sañu doxalee ko nu mu ko neexee donte ne mbokkam yi mere woon nañ ko jamono yooyu Ahmad tamit moom ak soxnaam soosu di Clara ña nga seen kër di dund ci jàmm ak ci tey Ahmad bu xëyee dem ca bitig ba dem jaay ndax bitig ba moom ca marché ba la nekk waaye koñ boobu ñu dëkkoon itam koñ boobu sore woon na lool ak koñ bi mu njëkkoon a dëkk ba tax na amoon nañ jàmm maanaam mbokk yi nga xam ne ñooy mbokki Clara yi duñ ko gis kon moo ngi nekkoon ci jàmm moom ak soxnaam soosu di waaye ndeysaan benn guddi la tëdd rek ñu woo ki nga xam ne mooy Ahmed téléphone ne ko yow yaay Ahmed mi yor doomu euh, Eric ñu ko waaw jamono yooyu téléphone portable yi bariwul woon téléphone fixe yi ñoo bari woon Ahmed amoon ci benn boo xam ne sans fil la mu daan ci digganteeg lenn ci ay mbokkam ñu daan ko ci woo mu jëndoon ko téléphone boobu ci lañ ko woo kenn ci dëkkandooy Père Eric daal di ne ko loo jàppoon na ko bàyyi. ndax kat musiba bu rëy moo dal ki nga xam ne mooy Clara ci ay famem ndax seen kër gi mooy tàkk tàkk bu métti jamono yi may wax sax sàppoor ñëw na ba am lenn ci nit ñu mu rawale mais lu ëpp ci waa kër gi moom ci lakk gi lañu ñu des maanaam dañoo faatu mu nekkoon lu doy waar lool noonu la Ahmed daal di jógee ci guddi gi rek daal di daw génn kër gi jël taxi jamono yoo xam ne Clara moom moo ngi nelaw Ahmed bi muy génn Clara gisu ko xamul lu xew moo ngi nelaw waaye Ahmed ba mu jëlee taxi daal di soññ borom taxi bi nekkoon ko gaawal loo gaaw xeb na fay ko xaalis bu weex tàll borom taksi bi dawal ci guddi gi waaye Ahmed bi mu duggee ci koñ ba rek gis na koñ bi fees dell ak nit tàkk-tàkk yi foo toll di ko séen noonu Ahmed ay rongañam tàmbalee génn yaramam di daw bi mu agsee fekk na koñ baa ngi fees dell ak nit waaye bi mu laajee kenn koo xam ne jigéen ju doon sëy ci kër ga la nekkoon goropa bi jigéen jaa ngi jooy jooy métti bokk na ci ñi nga xam ne mucc nañ bi mu ko laajee mu ne ko paa bi dee na ci lakk ji ni ko noonu tam jabar ji di yaay Clara moom faatu na ak li nga xam ne mooy ñaari frère yooyu ak benn sœur am maanaam daal famille Clara moom Clara moo fa rëcc ak ñi nga xam ne ay jabaru magam lañ ñaari jabaru magam waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër gi moom kenn muccul ñoom ñëpp ca lakk ga lañu des ndeysaan mu nekkoon nag lu doy waar lool fii la ñu yemale épisode bi ñu jox leen di daje épisode 4 bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. daw leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm àndil jamono bu nekk seen production Islam ca kanam